sax loo ma lem. sa loob bi man moo ma yéem. man de sa wax naa la de je t'aime tontu moom laa duma dem. kàll ku nekk di jéem. ñoo tay ngir diggante du dem. waaye am sem. la sem sa dema door. sax loo ma lem. sa bi man moo ma wax naa la de je t'aime tontu moom laa duma dem. ku nekk di jéem. ñoo tay ngir diggante bi du dem. waaye am sem. la tam sa dema door.